asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi seen football tv nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo pour ñi nga xamante ne dama bees ci chaîne bi maa leen wax welcome bienvenue abonné leen cliqué leen ci cloche boobu ngeen ni gis vidéo bu ñu doon moom ko seetaan bu leen fàttee tamit une vidéo bi c'est très important mbokk internet yi tey dañuy ñëw jox leen xibaar concernant suñu match bi war am le 9 septembre ñu war a jàmmaarloo avant que ñu ñëw la du fii ci réew mi war a match amical contre Algérie donc tey taskatu xibaar yi xëy nañu wax le quotidien ak ñeneen di xamale finalement match bi xamante ne Sénégal war na jouer fii ci réew mi bu sur le papier les ñu xool ak euh, règlement normalement Sénégal il ko war a jouer contre euh, Rwanda parce que ñoom match aller bi amuñu woon stade bu ñu homologué ñu ne tànn leen fu leen ne Afrique du Sud Maroc ak feneen ak feneen ñoom ñoo Sénégal mais nag dañoo amoon à ak fédération sénégalaise de football ne leen comme que ñun tan nañ fi ëlëk ci biir euh, retour bi normalement seen dëkk lañ ko war a rosé waat stade bii lañ ko war a waat maître Ablaye Wade mais nag ëllëg ci biir suñu stade bi fekkee pare na may leen ñu ñu jé ko foofu Sénégal nag ak fédération bi d'accordoon mais fan yii dañuy yëgoon comme information que fédération kàddu boobu mu joxe woon da si bëggoon génn li ko waral lenn rek la xëy na day préparer match euh, bii di contre Algérie parce que boo defee voyage dem Rwanda ñëwaat fii nii bëgg a zéewaat euh, contre contre Algérie match amical bi nga xamante ne moo gën a itteel Aliou Cissé peut-être fédération bi parce que c'est le très haut niveau et que bëgg nañu jël seen seen revanche donc voyage lañ doon bañ et aussi tamit le fait que ñu defoon ñaari match yëpp fii ci réew mi euh, daf leen arrangé en terme d'argent parce que boo xoolee stade maître Abdoulaye Wade bii nii xam nga jouer si ay match c'est est c' tellement cher euh, boo gisee finale coupe du Sénégal moo fi am ak benn Pikine Guédiawaye mais sinon à part équipe nationale du Sénégal te dafa laaj entretien dafa laaj xaalis bu weex tal bu xamante ne dañ ko war a mettre sur place loolu muy entretenir stade donc bu ñu amoon amical contre Algérie amaat beneen match bi Rwanda fii nii en terme de billetterie en terme de xaalis en terme de xaalis buy dugg dafay arranger fédération sénégalaise de football maintenant nag.

ken bëggul am gañu gañu Coupe d'Afrique c'est janvier euh, donc loolu yëpp boo ko boolee moo tax euh, c'est pour man à sa place xam naa naa si benn vidéo faut mettre une équipe bu xamante ne pour tester de nouveaux boys parce que c'est un match boo xamante ne on peut voir parce que jamono bi ñooy wax ne 27 joueurs yi moo ngi commencé bëgg di confirmer pour man à la place d'Aliou Cissé damay teg une équipe B te du sax équipe B c'est une équipe boo xamante ne ñi gën a gis ma teg Nicolas Jackson par exemple titulaire bu équipe B par exemple mën naa teg benn. Euh, deux attaquants benn 4-4-2 boo xam ne Nicolas Jackson la Iliman Ndiaye si kaw teg Ismaïla ak Sadio may bu fekkee Habib Diarra day ñëw mais que sans bu fekkee day war non waaw ah, pourquoi pas teg ko donc euh, bu fekkee Abdoulaye Niakhate Ndiaye ça se confirme que ni ñëw na ñu ñu boole ak sa keneen pour xool quoi pour xool yeneen booy lan la ñuy def. Euh, bu ko defee match bi xamante moo leen moo leen gën a utile di Algérie parce que bu xam naa ne bëgg nañ jël seen revanche tax xam naa ne stade bi commettre dina fees parce que sénégalais match yooyu moo gis ngeen contre beneen gars pour mu fees sax c'est un problème donc du moment que Rwanda la ñu joué le 9 beneen le 12 ñu joué fii ci réew match boobu mën na raxas équipe bi may ñeneen ñu joué contre. équipe bi xamante ne nag mooy Algérie mu teg équipe A man pour man loolu moom mooy idée bi gën en tout cas la fekk ñu joué Kigali man a rien de mal quoi franchement donc cadre bi respecté ko moo gën gars yi dem nañ ba wax ne président bu Rwanda sax dugg na si affaire bi dalee leen na kon président bi dafa contacté suñu président suñu président contacté fédération bi match bi am xam nga moom saa yi ko loo am doole am na ko doole loolu réglé parce que ñu ngi euh, président Rwanda di si dugg donc bu si duggee da leer na eh. de wax dañoo wax ak fédération bi dañoo plier seen loxo ne leen lii mooy am ñoom aussi tamit ñu mujj a nangu ñu mujj xam nga donc donte kayit yi ñoom la moo tax barke démb wala euh, mu xool seen samedi loolu dimanche kii di euh, président fédération bu bu Rwanda mu dana ma du ma déposé dara dara duma ko déposé te match bi Rwanda lay am du ma déposé benn kayit fële ca sa CAF. xam nga waa fédération sénégalaise de football après génne nañ seen bataaxal benn communiqué wax ne ñoom ñoo nekk si droit nangam nangam mais fédération bu bu bu kon xamoon nañ lii dañ ne duñ duñ déposé dara te match bi Rwanda lay moom wóolu nañ seen bopp de loolu jaaxaloon parce que këyit ji àndul ak ñoom mais ñoom loolu day lay na kon xam nañ ne seen président dina si dugg te seen président bu si duggee forcément match bi day am Kigali parce que président bu fédération day jeex Augustin donc mbokk yi li mu nekkoon vidéo bi ci commentaire yi wax leen ma seen xalaat ak seen gis-gis dooleel ma si yeen plateforme yi TikTok Instagram boo tapé seen football TV bi incha allah di ngeen gis logo bi jaajëfal naa ne wax leen ba beneen seen football TV. asalaamaaleykum wa rahmatullah.